wa ala alihi wa asxaabihi wa xulafaa'ihi wa man tabi'ahum bi ixsaanin ila yawmi ddiin mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ginnaaw bi nu yàlla sunu boroom julli ci sangu àddina ak sangu alaaxira te muy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi yëkkati nuyoo bu tedd muy jàmm yàlla ak xéewalam ak barkeem di ñaan yàlla sunu borom yàlla na ko yàlla wàccee ci àdduna bi yépp jiital ci nuyoo bi sëriñ kër Sy Mansour xalifa général de Tijane ñaanal ko yàlla ko yàlla sàmm ak mbooleem jabootu maam Seydil Hadji Malick bi yépp noonu lañu koy ñaanalee itam sëriñ Muntaxa Bachir moom itam yàlla sàmm ko kàttanal ko aar ko ak mbooleem jabootu maam Cheikhil Khadim bi yépp noonu la ñuy nuyoo itam tabaarakallahu njabootu Maulana Cheikh Ibrahima ñas Serigne Cheikh Tidiane ñas nuyu itam njabootu Serigne Cheikh Tidiane Seck waaye itam nuyu Cherif Abdullahi Thiaw Laay ñaanal ko yàlla moom itam yàlla ko yàlla yokk dëgëral ci darajay Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nuyu waa bitim réew ñaanal leen ñoom itam yàlla yàlla yokk leen dëgëral nuyu waa Amérique. nuyu waa France nuyu waa Belgique nuyu waa Italie waa Suisse Brésil Maroc ñoom ñëpp duñu leen fàtte Argentine yal na yàlla sàmm leen Allemagne ñu Espagne ñoom ñëpp ñu nuyu leen yal na yàlla barkeel leen ci darajay Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi itam ñu ndokkeel leen ci weeru tedd wi nga xam ni mooy weeru koor ñu ndokkeel leen ci weer wu tedd wi nga xam ni moom mooy weeru koor fa tabarakallahu di weeru barke di weeru ngëneel waaye itam di weer woo xam ni bu ñëwee bay dem bàkkaar bu mu ñu fekkee yàlla na ko yóbbaale yàlla na ci yàlla dëgg ba fajal ñu lii nga xam ni moom mooy coronavirus yàlla am na ko mën na ko tëlewu ko moom yàlla ñu ngi koy ñaan moom borom bi subhaanahu wa ta'ala yal na yàlla defar lépp ci daraje sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaan yàlla itam ñi nekk ci réew mi yal leen yàlla taxaw yal na leen yàlla jàppale koor gi ñuy dëkkmal yal na yàlla dimbali ñépp ba kenn du ci jaaxle yal na yàlla taxaw ci ñépp ba kenn du ci jaaxle yal na yàlla fatt turu yi nga xam ni tabaarakallahu seeni boroom dañoo jaaxle yal yàlla barkeel leen ñaanal sunu mbokki moodu moodu yi ña cay sénégalais gambien sunu mbokk gambien yi nga xam ne sunu ay soppe lañ baax bëgguñu di ñu defal ay teraanga fu ñu toll léeg-léeg ñëw wala ne la oustaz nga ne ah, ñu ne la ban tur moo nekk ci sa lëfin bi dama la day yónnee xaalis pour may la ko ndeysaan ay gambien yu baax yoo xam ni macha allah yàlla na yàlla taxawu leen ci darajay sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñëpp kenn amul seen fay yàlla na yàlla barkeel sutura àdduna ak ci darajay sayduna muhammad sallallahu alayhi wa mu mel ni mbokk yi dellu nañ ci sunu waxtaan wi nga xam ni moom la amal bis bu nekk bu 22 heures jotee waxoon naa la ni sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi muy dem dafa am jikko yum fi jële woon te neena li tax ma jële ko fi mooy dama xam ne su ma ko fi bàyyee jikko yooyu kenn du ko jikkowoo looloo tax ma jële ko fi ñu ne ko ban ak ban la mu ne barke ca la bokk moo tax amatul ñu ne ko ak ban mu ne bëgg te yàlla tax amatul ñu ne ko ak ban mu ne yërmande amatul ñu ne ko ak ban mu ne kersa amatul ñu ne ko ak ban mu ne maandu amatul kenn maandootul te mbokk yi sayduna muhammad nee na min xusni islaamil mar'i tarkuhu ma la yaani sayduna muhammad nee na bokk na ci liy rafetal sa lislaam mooy lu sa yoon nekkul nga maandu ca jullit dafay maandu jullit dafay yam fu nu ko yamloo te neutre ci problème mu jullit dafay maandu mais jullit ñoo xam ni duñu dugg lu seen yoon nekk mukk fii la fii rek la am ci réew mi problème mu jàmbur nga nekk ca di yee ka yàbbi te kenn dugalu la ci mu ne kon maandu amatul muñ amatul kenn muñatul lu metti lu la dal nga saalit lu la dal nga jàpp ni nita la ko teg te loolu doxul di muslu ci nit ñi di daw nit ñi di gaafal nit ñi gor ni yow nga àttana taxaw ni kii day lekk nit li ñuy tuddee baatu dëmm Seydil Hadji Malick nee na ku ko tuddee nit gisuma man Maodo ku dox sa digganteeg dem safara yu ne diw dañ doon tooñ ay maamam ñu di ko daw xeebel xeebel gi am ci sunu diggante parce que Seyduna Muhammad nee na nit warul rëy ñu ne ko yonent bi nan la ñuy xàmmee ku rëy màndargay nit ku rëy tey boo doon vérifier nit ku rëy ci biir nit ñi ban màndarga ngay gis bu tax nga war a xam ni kii daa rëy Seyduna Muhammad ni bariwul ñaar la ñu ne ko ban ak ban mu ne batarul xaqi wa xamtu naasi sayduna muhammad nee na koo gis mu bañ dëgg daa rëy koo gis mu bañ dëgg dafa rëy am na ñoo xam ne kenn du leen wax dëgg bari na ànd yu yàqu bañ a dégg dëgg tax nga bàyyi ka nga doon àndal parce que succès bu la dabee pour ñu wax la dëgg dala dafay jafe teraanga bu la dabee pour ñu wax la dëgg nga nangu ko dafay jafe nangu dëgg ku juum nangu ni juum nga parce que doomu aadama nga summiyal insaanu insaanan li kasrati nisiyaan nit day juum nit day fàtte mais nga nangu ko bañ a rëy mais am na ñoo xam ne duñu reculer mat naa bàyyi xel nit koo xam ni doo nangu bañ dëgg Seyduna Muhammad nee na koo gis mu bañ dëgg dafa rëy te am na ñoo xam ne duñ ko nangu am na ñoo xam ne sa ànd ak ñoom dangay xam ba ca rek bis boo leen waxee dëgg ñu bala parce que léegi li xew mooy koo wax dëgg mu ne dafa daf maa soxore li ma am <laughs> looloo fi xew de kenn du la wax dëgg nit nag boo demee ba sa papa ragal la sa yaay ragal la succès dab la teraanga dab la ngay dundee lu di def lu la neex jàpp ni kenn waru laa wax dara booba dugal nga sa loxo ci kàmbu ah mat naa bàyyi xel de yonent bi dafa amoon conseil ñu koy xaleel nit bu nekkee xale teraanga dab ko mbaa succès dab ko bu àndul ak conseil dana surux ci pax kenn du doyloo sa xelu bopp amul ku yàlla bind nag kuy noyyi ci kaw suuf ku sa xelum bopp doy mbir mu ne kala ca gën a yàgg moo la ko gën a xam mbir mu ne kala kala ca gën a yàgg moo la ko gën a xam dafay nangu dëgg bu ñu la waxee dëgg nga nangu ko mais tey benn taalibe ñemewu la wax sëriñam dëgg parce que bokk waxee du naan wuu xanaa da bëgg ma torox sëñ bi lay wax dëgg bu ñu gisee ku wax sëriñ bi dëgg ñëpp dar seen gémmiñ amul yar te sëriñ bi day juum nit kese la kenn dong dul juum te mooy yàlla képp <laughs> ku dul moom di juum seyduna muhammad yàlla nee woon na ko innaka laa tahdi man ahbabta walakin allaha yahdi man yashaau nekkul ni yow seyduna muhammad yaay jubal ku la neex man yàlla maay xool ku ma neex ma jubal ko yow lii sa mission mooy wama ala rasuli illa al balaax transmettre affaire bi rek mu dem message bi na jàll mais du yaay décider kiy jub ak ki jub nit yorul wërsëgu moroomam bul def sa xel ni diw bu la bàyyee da ngay torox bu ko gëm boo demalee sa bopp am loo am lu mu amul Serigne Cheikh Tidiane si nee na ki nga topp ba saalit ba def ko yàlla bis boo ko bawoon gëm sa bopp yàlla jox la lum ko joxul mais nit a koy gëm boo gisee léeg-léeg nga ànd ak nit ngeen di liggéey nga jékki-jékki ni ko damaa bëgg a beru mu mer parce que yéene wala ni mel nit li fekk yaa ngi doon suqam doon dunguróom rek ngeen nekk ci jàmm am na ñoo xam ne boo leen dàqalee yére ngeen di ànd voyage donc yoon wi yëpp dañuy fas seen kanam këj am na ñoo xam ne boo yóbboo ci ñaw bi ci téer bi ñaw ñu yóbbu nga dàqale leen ñu mer am na ñoo xam ne li fekk nekkoo seen suq nekk seen surga seen xol du féex nanuy tàllal rek na ngay tàllal rek ñu lay may pour seen xol féex loolu du àdduna def sa bopp sayduna muhammad def ñépp ay niti simple fan la am boo gisee léeg-léeg nga ànd ak nit ni ko dama bëgg a ber sama yëfu bopp mu mer bëggul nga bëggul nga mel ni mu mel kenn ñaanul yàlla sax ci emprunté guddeeg bëccëg ñaan nga yàlla nekk chauffeur un jour viendra mais koy dimbali sax ba mu yàgg nga gis ko mu sol lu rafet sax yaa ngi inquiété wu dafa mel ni léegi daa avancé ku la ñaanatul nga yaakaar ni daa yëg boppam il faut dire la vérité loolu doxul maandu leen ci deru jàmbur yi nit boo ko xamalul dara bu ko àtte senegal moom jàpp nañ ni jigéen warul am xaalis surtout ñu nekk bitim réew boo amee sa teraanga ñibbisi léegi ñu tegal la baatu gannaaw day farantu ba am xaalis day jaay dorog ba am xaalis yooyu rek ngay dégg mais ñaq ko ko may kenn du nangu nit sa bët yi bu ko teg ci li kenn am daf lay sonal dafay tax nga sonn bul jël sa teg ko ci nit li mu am tegal sa bët ci lila yàlla defal te mooy ànd nga ak wér nelaw nga ba onze heures yeewu dangaa biddanti tàllal say loxo mu tàllee ko ñaret sa cër yi tàllee ko ñaret dara méttiwu la nga ni yàlla alhamdulillah ci li nga ma defal nit tol na ni man ëpp ma alal fuuf yor ay milliards te tey ma nga ca lalu hôpital ba bu bëggee tuur ndox dañ koy branchel raakool man nag tegoo ma loolu kon jër jëf yàlla bari na koo ñee ñeewul boppam yenn alal yi ko ko am alal yi ku ko am dootoo noppalu calculer guddeeg bëccëg sa xel du dal foo toll yaa ngi sangoo saafara di aar sa bopp parce que réew mee mel noonu ku fi am tur nga am teraanga foo ko fekk du fendi tooy xëpp rek mooy jàmmam kat fii Sénégal gii <laughs> maay wax yow de boo bërewul dañuy bëre ba ci sa kaw nga perte Sénégal la fii réew mii <laughs> pat ak organisé wu rek moo fi avancé loo nit ñaar ngay boole pat ak organisé wu looy def bu ko nit naa ne ndox foo mën a dem bu ko nit ne ndox pat organisé wu ku defee noppalu waqat saaxaru xayrul wara <laughs> bu ñu demee ba njabar sayduna muhammad liggéey ko mu jàpp te a tax ñu liggéey ko parce que ku ñuy wax labib moo ko liggéey jël liggéey bi dugal ko ci teen dës ko ci ay xeer yonent bi yaram bi di diis dañ koo sëf parce que am na ñoo xam ne seen feebar bi leen di dal bu jant soowee rek seen yaram diis bu jant soowee rek bokkatuñu ba nu xëy suba doog a am jàmm mais bu timis di dugg si rek amatoon jàmm jàpp nit ñi di leen liggéey comme jour senegal 2000 francs la lañuy weexal sëriñ mu teg la loo xam ne sëf la wala mu dëddale la ak sa patron ñu dàq la wala mu tas sa sëy wala mu keryeel la boucan boo dul nettaleeti ci àdduna ndax zalu ku riis nag du soxor ku am personnalité du soxor ñi soxor ñépp ay néew ji doole lañ seetlu li ma la wax ku yor teraanga ju baree bare nga xam ni amoo looy soxoree kenn amoo yittey kenn na ñoo xam ne bari na luy xew dañ leen koy wax parce que amuñu jot nit bu amul jot dugg ci yenn yi fii senegal la senegal la nekk senegal la nekk de Serigne Cheikh Tidiane si ma dégg ci waxtaanam mu ni mag ñi daan nañu sangoo saafara ba fa nu fan daan palaas bi doon sangoo saafara bu ñu faatoo du mën a sax garab ndax day xóot léeg nga gis ko naan man nag ay saafara yi ay ñaan yi nag yii moom du sama affaire man moom <laughs> yow moom toogal rek nit dafay julli di ñaan bul def kenn lu bon parce que boo ko defee danga koy réccu mais aaral sa bopp bul liggéey kenn bul yóbbu sa turu jëkkër ci sëriñ loolu dafa ruslu toog ak sëriñ di tudd sa jëkkër loolu boo amee confiance war a xam ni yow kuy wër traître na la jàpp toog ak sëriñ di cité sa turu jëkkër yow traître nga ma nga ca liggéeyu kaayam ba di liggéey nga tàggu ko foo xam ni demoo fa dem ci sëriñ ànd ak sa xarit te en général kuy dem ci sëriñ xaritam lay àndal soit que xarit baa ko tegtal sëriñ bi dañuy ñëw ne la jànq ki ma am xalimaam du laal suuf wuy jànq kii jinne la jànq dara fen rekk mat naa bàyyi xel de moo tax yowmal xiyaam dana metti parce que Seyduna Muhammad nee na su ngeen dekkee su ngeen dekkee yàlla dana laaj seeni cër ba mu des làmmiñ ñu ne lu tax yàlla du laaj làmmiñ mu ne parce que làmmiñ dafa mën a wax lu dul dëgg moo tax yàlla du ko laaj yàlla yeneen cër yi lay poser question cër bi cër yi lay laaj ba mu des làmmiñ al yawma naxtimu ala afwaahihim wa tukallimunaa aydihim wa tashhadu arjuluhum bi ma kaanu yaksibun yàlla nee na soo dekkee ci sa bàmmeel damay poser question loxo ne ko loxo mu ne ma ma ne ko kiy wax ak yow mooy sa borom ba nga juddoo ba fii may wax yow loo ma sa def foo ma a dugg <laughs> allahu akbar ñaata yoon nga dugg ci sa poosu jëkkër sàcc xaalis loxo jigéen yàlla jógeeti fa laaj bët ni ko loo mës a xool ñëw ci nopp ni ko loo mës a déglu nopp commencé nettali biyoon si yi ma daan déglu musique yi ma daan déglu nopp di ko nettali yàlla yàlla ni nopp est-ce que daan nga jékki-jékki jël say écouteur jàpp alquran roof ci biir di déglu nopp ni ko noonoo non temps en temps rek mat bàyyi xel de cër bu nekk yàlla audité ko ba mu des làmmiñ cër bu nekk yàlla laaj ko ba mu des làmmiñ ñu ne yàlla lu tax doo laaj làmmiñ mu ne parce que dafa mën a wax lu dul dëgg yàlla bi mu bindee làmmiñ ni ko xam naa la xam ngoo xam ne lu yàqu ci àdduna muccoo ci moo tax danaa fexe ba doo rëcc danaa bind 32 soldats ñu lay garder mooy sa ñaari bëñ yi ci kaw bindaat rido ñaari rideau ñu tiim si ñu tiim ko di ko garde tiim soldaar yi mooy ñaari tuñ yi walisaanan wa shafatay ni te tey la làmmiñ gën a mën a génn di wax lu dul dëgg teey leen ci saafara yin leen di jox nit du loo gis sangoo ko nit du loo gis ñaan ko du loo gis wirdu ko te dafa am ñoo xam ne wird lañuy ñuy bañ a seen ñoom wird lu nu gis bëgg koo wird seen banque gi ngeen nekkee du du du bu mu leen jommal ba lu ngeen gis bëgg koo wird loo dégg rek bëgg jël kurus wird ko nit day tey tey gëstu te bu la nit di ñaanal nanga xam ni kii da vérifier ba gis koo xam ne leer na la ni li muy def raxu ci njabar te ci alquranul karim la sukkandikoo mais nga ñaan loo ko bañ a dem ci sëriñ boo xam ne daf lay nax lekk sa xaalis walla mu bindal la ah wala mu tasxiir la tasxiir goo xam ne tey lim lay jox boo ko sangoowee moom ngay gëm moom ngay topp loo yor jox ko ko te doo ko bañ ñaata nit a fi topp seen sëriñ bàyyi seen ndey bàyyi seen baay abandonné définitivement lum yor jox sëriñam bu boolu añ bi tegu woon tey jii waa kër gi nar añ sëñ bi mu jox jab yu mel noonu nag sa jabaray sonn mooy wuti ñaan fu ne pour nga basa sa sëriñ mais doo ko ba parce que am na loo xam ne bu xasee jàpp ci axaan dindiwu nanu góor góorlu defar sunu àdduna te lañ koy defaree nag dara jiituwu ci jaamu yàlla waxtaan wi nag tey fii laa koy yemale ndax dama bari activité yu may def bu koor gi dugg see dootoo am jot yaa ngi ci émission yi thème yi ngay bind doo am benn jot wax dëgg yàlla te boo xasee engagé wu nag ci engagement jàmbur da nga koy bëgg a matale te am na contrat yoo xam ne boo ci xasee nekk ba ñu jël seen alal jox la nga signé ak ñoom waxtaan di ko respecté muy jàll ci télévision da nga koy jox àqam muy lu ci war ci gëstu nga koy def lu ci war ci jox ko temps da nga koy def loolu nag du mën a ànd ak foo toll di direct Facebook moo tax incha allahu rabbi koor gi. facebook bi jeudi ba jeudi lay am au lieu que muy am tous les jours mais jeudi ba jeudi lay am mënatul a am tous les jours mais guddi àjjuma ba guddi àjjuma incha allahu rabbi vingt deux heures dana am vingt une guddi àjjuma yi koor gi vingt une lay doon incha allahu rabbi bu ko defee ñépp xamee ko noonu waxtaan yi à part tey jeudi ba jeudi lay am jeudi ba jeudi la waxtaan wi di am vingt deux heures incha allahu taala yàlla yàlla nangu seen koor nangu sunu koor defal leen yiw defal ñu yiw ci darajay sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu ko defee na ko ñépp xamee noonu waxtaan wi incha allah jeudi ba jeudi lay am pour ñi koy suivre seeni xarit di ko suivre ñu di ko bàyyi xel jeudi ba jeudi daal incha allah lan ko fas yéenee def ndax koor gi xataay yi ci am incha allah mooy tax yàlla yàlla fay ñëpp yiw maa ngi gërëm nag ñëpp nit ñi cofeel bi ñuy am ci yow teraanga yi ñu lay defal bis bu nekk nit woo la defal la teraanga ju rëy te mosoo leen a gisante loolu nag ki la koy defal sëriñ Mansour si boroom daara ji nee na nit bu la defalee teraanga danga koy sant nee na baadoo rek ngay defal teraanga mu guux le xam naan dama ko yeyoo waaye ku la teral war nga koo sant maa ngi leen di ñaanal yéen ñëpp yàlla bu leen kenn ëpp teraanga ci darajay Seydina Muhammad yàlla yàlla taxawu leen bi jaaxi sayyidil wujud sallallahu alayhi wa sallam kontaan naa bég naa yàlla may ñu kooru jàmm ba jeudi incha allah ba incha allahu rabbi ñu dajawaat waxtaane sunu diine asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu